ci tënkee mooy maanaam jigéen ñi nga xamante ni dañuy faral di génn ci internet bi di xas Ousmane Sonko ñu baree baree bare dañuy faral di jékki-jékki rek di génn di attaqué dem ci télé yi di attaqué Ousmane Sonko ban commentaire ngay def ci ñooñu xamante dañuy nekk di wax lu ñaaw Ousmane Sonko. jigéen ñooñu de kenn rek laa ci njëkk di balaa mi Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. Hmm. <laughs> te wax na bërki démb ne. Hmm. Eh, mu ngi ñëw. dal ci kaw Ousmane Sonko. mi ngi ñëwaat mi ngi ñëwaat. <laughs> waaye dama koy wax ne ko moom balaa ñëwaat. Hmm. du ko fekkee te du ko tal. ah Ousmane Sonko duñu ko gone di këll këllee. Hmm. Uh-huh. ndax eh, Ousmane damay wax ni yàlla moo ko teral. ndeysaan moom ci moom ay maqaama wala ay daraja joo xamante ne wàll nañu ñun ñun ñii rek. ñoo Ousmane wàll ci. léegi dañuy tëdd guddi sax xam li war a xew suba may mayu yàlla la ndax yàlla daf koo may ba mayaale ku bëgg Seydina Ousmane Sonko mu def ci yow ay jikko hmm. muy dëggu mhm. lekk lu lew Sénégal ñun moo ñu ñor leneen ñoruñu man chaque jour damay wax ne du Ousmane Sonko kese moo ma ñor de mhm. man Sénégal moo ma ñor ndax damay yàgg dund lu metti mhm, yàgg gis lu metti yàgg bokk ci parti boo xamante ne nag kumba am ndey la ak kumba amul ndey kon ba ma santee yàlla sama yaay liggéeyal ma ba ma génn ci parti boobu daje ak Seydina Ousmane ko kon man dama naan sama àdduna yàlla deseelatuma dara kon Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi na réglé mu ndax dama ne ko kër ndeyam gi dëkk ci Fuuta mhm. ay baraag la ba tey ay mbuusi permis yaabar moo ko wër te Faatumata Njaay ba muy am 15 ans la moomoon boppam ba muy am 15 ans la moomoon boppam yilif boppam kon moom awuma lenn loo xam ne dama koy wax ak moom ndax moom dafa yàqu te am na lim doon incarné di ko indi muy fuuta tampi mhm. su fekkoon ne loola moom la indi woon ngir xeexal fuuta nekk doomu fuuta mhm. fuuta tey passé na fii ndeysaan waaye nag li mu andi woon la mu diwoo loolu la xeeñut te nag dafa war nag la biteel ba di def moom la saañ ba war a xeeñ kooku moom awma moom benn wax mm-hmm. ndax nag bi mu laalee Seydina Ousmane Sonko fii ak booba gis na nag buy laal na lu weex xat te dina gën a laal lu weex xat ak ñeneen ni moroomam Aïssatou moom ban commentaire ngay am ci moom sa euh, nawle la waaw Aïssatou Diop Fall du ma ko wax Aïssatou Diop Fall mu kii mbaam xuux Fall laa koy tuddee moom de boo moytu sax suba mu génnaat waaw suba lay génn waaye amul lu moom amagul résultat euh. non non moom moom li mu bëgg mm-hmm. amagu ko ndax ca tele ba muy liggéeyee la te du am ndam nag. Hmm. ndax doo ko gis mukk mu invité ko bokk Pastef. ah mhm. doo ko ah. gis maanaam euh, ñu yàqal Seydina Ousmane Sonko waaye Ousmane yàlla moo ko defaral sa aras jiitu na ab juddam loolu kenn mënu ci dara. ndeysaan ñu dem noppalu. ndeysaan xam ne dogalu bi nag nit da koy nangu bu baax a baax. dañuy ñëw nag si Touba ndax mënuñoo waxtaan ba jeexal te waxtaan Touba ak sëñ Cheikh Coroog euh, yi muy def ay silur yu baree bare mi ngi ko fiy teg. ak ay mag magi Pastef yow ngay nekk Touba miin fi euh, ban commentaire ngay def ci sëñ Cheikh Thioro mi nga xamante ne ñu bari sax Sonko lañ koy woowee ndax daanaka lu Sonko tabax fële mu tabax ko fii lu mu def dakaar mu def ko Touba ban commentaire ngay am ci ak ñoom Ibrahima Gueye nay leer ñoom njaay tuuba euh, ak sa ku mel ni ma yow nan ban commentaire nga ciy def. waaw damay wax ni sëñ Cheikh Thioro euh, dama naan mënut bañ a noonu ndax ca juddu ba la. Euh, boole ko tamit euh, damay wax ne euh, liiru jaan jaan lay doon te bu màttee fa suñu lugu ko kon moom ba pësiif di metti boobu kenn ñemewul Ousmane Sonko boobu la ko doon xeexal biir Touba nag nekk fi nekk fi nekk fi